suñ sëñ Abdoulaye nag tey ñu setti ko bëgg am moom waxtaan waxtaanu xam-xam waxtaanu euh, aajo jaamu yàlla yi ak aussi euh, war nañu waxtaanee mbirum actualité am na ay révélation yu am solo yoo xamante ne war na ko def incha allah euh, sëñ Abdoulaye balaa ñu dugg si programme na lay daal di bàyyi nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan. aouzu billahi min achaytaan arrajim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 إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الملك القدوس السريع العلي العظيم تشمشا تشمشا براحة براحة براحية براحية أشجم أشجم ينون ينون أن ينون أن ينون يا مبر الأسقام إبرئني من كل داء وبلاء يا درج عظيم الكون كوني البغية بحق قولك لكل شيء كن فيكون وبحق سلام قولا من رب رحيم أغلي من أغلي من غيل غيل تام تام تم تام من أي من أي من كيم كيم دكن دكن تدكن تدكن ذو الجلال والإكرام قائم من قائم من من قيوم قيوم من نهش نهش برغاس برغاس ينبين بيني جميع الأمور واكشف لي سر الواضحة وكذلك النور إبراهيم ملك السماوات والأرض وليكون من الموقنين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci képp ku ñuy suivre à travers la chaîne leader Galsen People ci biir réew ak bitim réew ak chaîne bii di Mystique 5995 TV wasalaam sëñ Moussa ñoo ngi lay nuyu. macha allah euh, macha allah sëñ Abdoulaye kay kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax. si Abdoulaye tey mën naa ne euh, li ma gëj a gis wala loo xamante ne daaw ma ko gis laa gis tey sa kër macha allah. Mhm. ngay def ay sarax. Mhm. sarax à l'appui. Mhm. Euh, am preuve. macha allah gëj nañ ko mën naa ne sax liñ koy gis bëriwul. Euh, nit ki jox la alal. nga war ko defaral sarax. sarax yi xam naa damay bàyyi mbokkante noonu di gis image yi gis video yi. incha lan la doog ñëwaat. macha allah. incha allah rabbi ñu daal di lay defal sarax bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam man nag sama liggéey nii la lépp lu may def rek damay bëgg mu am doo ma jox sa xaalis ma ne la ay ca dinañ ci def sarax sàngam ba pare jël ko lekk du ma ko def soxla doyoo ma ko dara parce que loolu boobaa sax la ma lay defal du am mu noo ñaanal nit ki ba pare war a mottali sarax yi dem lekk ko tëdd nelaw naan ko saraxu nag ba génn nag saraxu gileem ba génn boo paree nag yàlla nu muy nangoo sa ñaan ah, ah? waaw moo tax nag lépp lépp lu may def ci nit ka la ka tax a jóg ak nit ka ka moom nii appel vidéo whatsapp yombal na lépp danaa ko def nga gis ko nii en temps en heure ñu rendi ko jox ko jaamu yàlla yi ñu jaamu ci yàlla moo talee ko suñu liggéey ndax li liñ doon liggéey li ci wàllu course faw ñu tuur deret lu tax ñuy wax pour mu mën a jàppan ni incha allah leer na baax na bu jaru sax ngay kii ni jaru ngay coupé. Euh, macha sarax yooyu nga xamante ne sëñ Abdoulaye Wade mi ngi ko doon def te Abdoulaye euh, balaa may ñëw si sarax bi dama bëgg xam rek euh, confiance bi la Modou Modou yi jox surtout ñoom. si mhm. wàllum ñaan yàlla si wàllum mhm. sarax. Mhm. naka nga lay ñëwee. waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah. dëgg moo njëkk te mooy mujj. ndax arab bi dafay tàmm di wax naan alxaqu saabitu. mooy dëgg mooy lu sax. waaye lu dul dëgg neen la te naxe du wéy. dëgg la allah man nag. comme ni ma ko tàmm di waxee tey yàlla dogal nga yem si. gis nga ma sax fi mu toll nii talu ma sax. def comme ni gars di def dem sol benn garaam bu. waaw changé wu fii dóor benn koppati bu teeng. xam nga daal di ci teg boo ay bagage ak i ak kurus. génne iPhone 15 pro max yi. yooyu yëpp aw ma jotam. <laughs> waaw liggéey rek laa tal. Euh, nit. bu fekkente ne li nga nekk wér na da nga ciy sax. te ko waaye lu mu yàgg yàgg. ñi gëm ak ñu gëmul ñëpp danañ ànd ak yow fekk si la ci li nga bëgg. ba may wax ay saraxu nag defe naa bi ma yàggee saraxu nag def saraxu nag du tey. Hmm. ak ay saraxu xarak ak béy yàgg ko tudd ci samay émission ci wàllu samp yi may def. ñenn ñi nag danañ ne ah diw day wax rek pour wax waaye ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñu nar a jariñu man nee naa képp ku narata jariñu hmm. duñ jëflante képp ku sa aajo narata faju tamit duñ jëflante hmm. ñi nar a jariñu te yàlla def ñu am xàmmee luy leer ak luy dëgg danañ ma wóolu jox ma seen alal te benn ngant du ci am waaye nag en retour aw ma tamit euh, li naan la confiance qui pas le contrôle waaw tey lu ma nit ñi wóolu wóolu wóolu ba di ma jox seen xaalis lépp lu ne laaj naa leen ko ci seen alal war ko cee def dama koy def wut leen jox leen preuve yi wane ne def naa ko defe naa vidéo yi témoigné na ko kama doon defal tey sarax bi dama ko woo appel vidéo won filmel ko lépp muy tiim ñu def lépp en temps et en heure ba ci rendi baag yëpp ci kanamam. ñu daal koy def ba xolam sedd guy. ñu jublu ci yeneen liggéey yi ci des. macha allah sarax bi nag moom daanaka la ko taxoon a jóg la ca war ci course def nañ ko ba pare. Hmm. waaw li ci des nag mooy boo ma laajee lu sarax bi lu ci lu muy dox. Hmm. ak tamit Euh, yan njeexital lay am. Mhm. ak tamit lan lañ liggéey laataa ñu koy def incha allah ñu tontu la ci. macha allah solo euh, fa laa bëggoon ñëw ñëw sax mais balaa ma lay poser question ma bëggoon xam rek lan mooy njëriñal sarax si doomu aadama. waaw sarax nag moom. Mhm. dafa nekk loo xamante ne lépp la mën. Mhm. sarax dana fànq dee. sarax dana guddal fan. sarax dana maye wér yaram. sarax dana yokk wërsëg. sarax dana defal ci nit ki sarax daal moom lépp la te ñaan. caabi ñaan sarax la waaw sara caabi ñaan mm. sarax la tey boo bëggee di ñaan muy gaaw nangu mm. wala la ngay def yàlla def ci jàppandeg teel mm. da ngay xam sarax bi nga war ba ca war nga def ko boo ko defee rek automatiquement aajo bi day faju boo gisee li tax sëriñ yi di listixaara ak yooyu yëpp sarax xam sarax tax ginnaaw ba ñu xamee yow luy sa njàqare ak gëstu ci maandute gu mat sëkk ba xam ba xam yow mën nañoo faj sa soxla sarax la bëgg gisaale ko pour xam yow e-, effectivement. Mhm. sarax biñ wara def ngir liñ lay ñaanal gëna a japp sarax fu mu génné mhm. ñaan tegu ca. Mhm. bal bi tak na. Hmm? waaw. allahu akbar. macha allah macha allah am solo. Eh, amna solo bu baax a ba ñu gisoon nag ngay rendi ben nag. ñu bëggoon xam nag nit ki yeen soxla la waram ba mëna eh, rendi nag pour sarax ko. wa rendi nag nag. du ku nekk ko mën. kon su dem nit démé ba diko def def. fay fekk ne a joba jarnako parce que tamit. fekk ku mënta jënd ginaar nga ne ko reyal du sotti. loolu tamit dëgg <laughs> waaw. Mhm. Mhm. saraxu ko mën mhm. te àtten ko. la ka tax a ko moom lañ koy defal waaye nag li ci liñ koy defee. samp moo koy tax a jug. samp waaw samp. koo xam ne dafa bëgg ndombal tànk. di ko xëccoo ñu fexe ba mu am ko. fekk ku po koo xam ne sax du ma ne ko pauvre parce que ku pauvre mënta génne saraxu nag. <laughs> waaye fekk koo xam ne dafa tollu diggante. bëgg hmm. ay mbiram gën a dox ñu génneel ko saraxu nag hmm. fekk ku feebar ba toll ci situation yu critique yoo xam ne dañ naan dund ak dee xaj na fi hmm. ñu génneel ko saraxu nag fekk koo xam ne dafa bëgg a nekk millionnaire wala milliardaire ci benn at nag laa wax ñu génne loola saraxu nag waaw loolu moo jug sarax samp daal waaw ak déclencher mbiru nit yóbbu ko au sommet looloo tax ñuy def saraxu nag Euh, macha allah sëriñ Abdoulaye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax euh, ñu bëggoon xam rek ba xam sarax ji da koy génnee rek saraxu nag bi da koy génnee rek bàyyi ko noonu wala dafa am leneen lu muy àndal. waaw sarax bi balaa ñu koy génne dafa am lu ñuy liggéey ci baatin ba pare. muy lan waaw muy loo xam ne tur yàlla lay doon. Uh-huh. ànd ak i tur rawaan. Uh-huh. waaw su ko defee nag ay sirru la. Uh-huh. waaw yàlla dimbali nañu nag comme ni ma ko tàmm di waxee ku ñu dégg di wax te xam. da xam ne kii li muy wax fooyeewu ko te làmbaatuwul baatin. dafa am ay sirru sirri yoo xamantene ne hmm. yëfi mag ñi la ba heure bi yàlla def ñu jot ci sirru yooyu nag bu ci nekk ak li ko tax a waaye samp la hmm. fal ak fool yi ak defar mbiru nit ak may ko alal léegi nag ci biir sirru yooyu dafa am yoo xam ne tantôt hmm. ismulaay ahzam la tantôt tur rawaan la waaw des sax bu ko laajee ñu dem ba ci turu jinne waaw ko laaje sax ñu dem ba ci yeen turu jinne yi mais lolu turu jinne du lu extraordinaire parce que tour yalla man lepp tour yalla mo gënal tarawana man jinne tarawana man jinne tarawana man jinne kon nak yoy yeb ya rien d'extraordinaire ku ci nek dal bo ñëwee selon sa besoin la laaj mhm. ñu jaare fa ak yow bu démé nak ba ci mhm. lu ci melni ismu Jalal, ismu Jalal. waaw fofu amna fo xamné fa jaar waju wër yu leer yoo xamante ni kuñ fa jaaral pour wàllu fal moo ko tax a jug. wàllu fal ni ciy falee tamit noonu lañ ciy follee. waaw selon besoin bi rek bu ko laajee. Mm. ñu def ca la war. ak ku bëgg alal daar daar. Mm. ci at mi. nga nekk kuy ubbeeku man nag yoruma ay yëfi eh, yi gars yi di def naan kaay defal mm. sacrifice bii ma tegal la fi xaalis man dox ma ci yooyu amul li ma xam daal mooy tur yàlla lay jaar mm-hmm. ak sarax ci mm-hmm. lépp lu set lu sell te leer mm-hmm. ba yàlla def ci à fur et à mesure ngay dem ca bu liggéey ba matee hmm. li ko dalee bis ba liggéey ba mat jëm kaw chaque hmm. jour ngay gis yokkute ci sa jëmm ci luy yokk ci xéewal ak teraanga ak kaaraange ak wërsëg ak hmm. wilaaya xabula gépp ci biir lépp liñ la connecté yettal la ko ci xawaatim yettal la ko liggéeyal la ko ci turu yàlla ba def sarax bi loo gën di dem rek ci at mi muy gën yokk balaa at bee yegg yow da nga xam ne bis bi ma defalee bi ma sëñ Ablaye Ndiaye defalee nangam laataa ca déwén sa ca mbir ma. Hmm. fekk na sama lépp ubbeeku na. noonu la affaire yi di demee incha allah. macha allah am na solo waaw ci ay yoonu xëlwa nag yu métti. yoo xam ne. Hmm. liggéey tur yàlla dañ ciy def ba yëg ne liggéey nañ tur yàlla. ndax ku ñu xool xam ne tëdd ñu di nelaw lekk ñuy ginaar jaaxaan topp ñu jongo may mhm. te nekk ñu ci zulmaan yi macha allah loolu la yàlla dogal <laughs> macha allah <laughs> macha allah am na solo nit nga bëgg a dafa bëgg a toog si place mhm. maanaam mun na nekk si entreprise wala ñu mhm. ko directeur muy xalaat ñu folli ko bu bëgg toog si place sax fa waaw ba ci ministre yi sax dolli leen ci ba ci maire yi te fi mu toll nii surtout fii jamono ji toll bëri na ñoo xam ne danañ leen buddi buddi gu ñaaw. Hmm? te gis naa ay nit ñoo xam ne du ma tudd seen tur. parce que hmm. man am na noo xam ne doxuma ci. parce que du ma def loo xam ne day ma ak yooyu. man yooyu hmm. daal da ngay xam ne kii soxla naa ko sëñ Ablaye Ndiaye mii nga def yitte pour jot ci man ma def la war ci say mbir. mais xam naa ay nit ñu bëri ñoo xam ne surtout ci politique bi. dinañ leen buddi simple leen te ñeneen ñi duñ leen buddi rek simple mais dinañ leen tëj. ba ci fii bii ma sax laa wax ku ci deful ndànk ya sa sa kaso leer na. Bambilor gii ma nekk laa wax. am na ci ñoo xam ne seen kaso leer na ku ci teelul jug nag danañ la tëj ak koo mënti doon ak loo mënti yaakaar buñ la jàppalewul ci baatin dëgg. ci lu leer nag laa wax. ci lu leer wax ma ci ay xasulmaan yi ci xam-xam bu leer. Hmm? da nga tëdd kaso. naka noonu nag képp koo xam ne nag yaa ngi nekk ci poste bëgg fa maintenir. Hmm. bu ma jaaree ak yow ci yi may def rek incha allah rabbi danaa la fa saxal yow yaay toog ba doyal jóge fa. waaw ndax dafa am yoo xam ne ku ci samp nit. Mhm. sempi ko du yomb néew ma mënul nekk waaye du yomb. <laughs> macha allah macha allah euh, macha allah sëriñ Abdoulaye mhm. Wade Ndiaye. Mhm. am na solo bu baax a baax a baax. Euh, ñu dégg ni euh, macha allah ay nit ñi nga ñëw si yow. nga leen di jox ay tur yàlla. di leen jàngal. est-ce que ñëpp ngay jox tur yàlla ku ñëw rek di nga ko mën a jox tur yàlla. déedéet mënul nekk déedéet du ma ko def xam nga bu doon loolu mu ubbi groupe WhatsApp. pourtant ay at ni ay ni top ma ne ma bi ubil groupe whatsapp. ya la yalla sédé na ndax sa xam-xam doy nañu. Mhm. lam motax ma refusé. xam na ñëpp yeyoowuñu yenn yi motax ma bañ. ndax xaalis ban na cay fay neex na trop. Mhm. xam-xam ba ngay tok di jangalé jàngale tamit ñi diko jot ci jéglu jappandi neex na trop. Mhm. waye conséquences yi lu mëta a la. ndax yoru ñu xol bu sellu ñu ñepp setu ñu du ñepp tamit ño wara am xam-xam. am na koo xam ne groupe whatsapp nga ubbi ko ndax da ngay def casting balaa ngay dugal nit ci groupe bi ak tamit est boo defee casting nit ñi lañ lay wax ak li nekk dëgg la am na koo xam ne dana la gëmloo man ku sell laa ku baax laa ku bëri yërmande laa bu sooba yàlla hmm. lépp lu ma fi gis ci xam-xam li ci baax laay jëfe li ci bon du ma ko jëfe mais du dëgg parce que groupe whatsapp boo gis bu fa cinquante personnes nekkee hmm. am na fa vingt cinq personnes wala trente personnes yoo xam ne seen xol yi dafa ñuul ku ku loo fa joxe ci xam-xamu xeex wala yàq nit wala noob danañ ko jëfandikoo ci loo xam ne du daganul du farata suñ paree lor ci doomu jàmbur yow nga encaissé sa xaalis na garaawul euh, lu waay def boppam man wax naa leen li ci nekk waxoo leen li ci nekk parce que boo xamoon li ci nekk doo leen jox lu ñu yàqee nit kon lépp loo gis dafa am yoon waaw waaw comme ni ma ko waxee rek maanaam ku nekk ak sa philosophie contre ma nag ñi ubbi groupe whatsapp di jàngale xam-xam seen tolluwaay la Mm. mais man dama wax li nga xamne japp na ne mom moy sama logique bop mm. te mu yenu mana mm. motax xam-xam man du ku nek la koy jox dama lay xol ba ba nga doy ma ma la ba xamne yeyo ma jox lako du khalis bi mm-hmm. ma ngi sante yalla mm-hmm. lu way yor ci teranga jëm ci lu manam maanaam ci tour yalla pour jot ko mën nga ko mm-hmm. téye man lima yor bu ne wirul kon duma yexi fi ma yexi waye tamit bu ne lima yor wirul ah kon dana waye di ndax comme ni nga dégg philosophie bi ñu wax. Mhm. Jomay falu na Sonko ngi fi. parce que yor lu wér mooy mbir mi. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal yàlla nguuru yàlla du daanu. nguuru nitay daanu. ak leneen lu dul nit. waaye ku nekk ci nguur yàlla. ba keroog keroog yomal xiyaam fii ak yaa ngi nekkal yàlla man kaana lillaahi kaana allaahu lahu say mbir day dox. kon kuy tiit naan nangam dana yàqoog wala mbiru liggéey sëriñ bi day day yàqu daa fekk yow yow nekkoo ci dëgg. waaye nag ci biir loolu nag tur yàlla képp ku ma koy jox da koy yow nit a ngi jóge ba Mauritanie billahi lazi laa ilaha illa huwa ci hmm. bisub tey jii ñëw fekk si ma ngir lan tur yàlla ma war ko jàngal secret bu mag boo xam ne bu wér la te mag ñu fonkoon ko muy defar dund nit ki di faji xaajo mu yëkk fas yéene yëkkati xaalis bu bëri jox ma ma jàng ko ci bisub tey jii bu subaa mu ñibbi waaw loolu nag dëgg moo koy may ak xab-xab waaye nag du ku nekk laa koy defal hmm. bu ma bëggoon xaalis rek ubbi naa groupe whatsapp bu yàgg nit ñi wal wala si xëpp ma ay millions. Hmm. mais conséquences yi ëllëg lu ma ta bàyyi xel la. soxloo ma loolu. macha allah damaa bëgg lépp lu may lekk mu lew ma te sama njaboot ëllëg ñu am aafiya. Hmm. topp ci leen wala bàkkaar di ma sonal. Hmm. waaw macha allah macha allah. Eh, macha allah Serigne Abdoulaye Wade Ndiaye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax a baax eh, daanaka nag waxtu bi eh, jeex na. mais nag balaa ñuy tàggatoo bëgg naa ñu waxtaan mbirum actualité. ak yaa mel ne yaa ngi waajal benn voyage. incha allah. maa ngi waajal tukki bitim réew. Hmm. destination bi nag du ma ko wax. Hmm. xëy na su ma demee ba yegg fa. samay nitu bopp danañ ko xam wala bu ma ñibbisee. Hmm. waaw parce que soxloo ma ña ma fay fekki. pour ñuy ñëw naan sëñ bi moo ngi fi na ma ñaanal. man ñi ma xam xam nañ ma ba pare. ña ma war a xam ëllëg tamit danañ ma xam incha allah yàkkamtiwu ma dara. fi ma fi ma jëm ragaluma ko. waaw mais nag tukki bii may tukki bitim réew. allah rabbi ci jamono ju néew. bu ñu yàlla mayee fekkeek tal. bañ génn ci koor geeg jàmm ak salaam te mu ànd ak nangu ba korek korite mhm. ak jàmm incha allah ñu tegu ci yoon bi foofu la ma fa yóbbu mooy jaamu yàlla mhm. yokk sama leer mhm. rawatina ci tariixa bi ma bokk waaw looloo ma yëkkati waaye du affaire dem nii pour tourisme wala dem pour naan gars yi ñëw leen ma ñaanal leen yàkkamtu ma dara maa ngi toog fii muy dox kon waa bitim réew déranger wuñ ma ci lenn. <laughs> macha allah am na solo bu baax a baax a baax sëñ Abdoulaye Wade Ndiaye mais balaa ñuy tàggoo rek bëgg naa ñu ñëw ak yow si euh, wàllum politique. fan lañ président bu bees mën naa wax loolu. Mhm. ak aussi euh, euh, am na tamit ñaari dese yoo xamante ne mhm. amoon na. Mhm. ñi nga xam ay candidat lañu woon. kenn ki Boun Abdallah Dionne. ak Mamadou Yatassaye. nan nga gisee mbir yi. Sénégal mbir yi élection politique bi noo gisee mbir yi. waaw fi may njëkkee rek mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mhm. ñuy jaalewaat waa senegal gi yëpp. Mouhamadou Yatassay moom. yal na yàlla yërëm ko oyofal suuf ci kawam. moom jullit jam fay fekk yëpp ak ñoo ko fay fekk yàlla na yéex. waaw Boun Abdallah Dionne tamit maa ngi koy jaal senegal gi yëpp. yal na yàlla yërëm ko xare ko àjjana firdawsi moom ak julli jëm fay fekk ak ya ko fay fekk yàlla na yéex waaw foofu nag li ñu fay jàngalee rek mooy yàlla ay mbiram loolu rek doy na kéemtaan mm. di xëcc nguur te yow doo ko fekkee waa lool rek leçon la mm-hmm. pour xam ne dara jaru fee daw bay daanu jar dara jaru fee dugg ci loo warta dugg mm-hmm. waaw ku nekk daal xoolal liy farata te lu waay mënti nekk tamit sóoraale ci yàlla te xam ne dee du jaas te buy ñëw du bu ñuy dem di xëccoo ju nguur gi duñ ko fekkee duñ ko tal wala bu fekkente ne sax fal nañ ko ñuy fal ki mujjee dem muy Boun Abdallah Dionne moom du jot sax xam gouvernement bi nu muy tëroo kon nga xam ne loolu yëpp njàngale la kon lu waaye di def na leer te nekk ci li yàlla bëgg waaw beneen bi nag mooy ki falu tamit jàngale na ci yàlla wane na ci boppam ne moom mooy joxe nguur qulillahuma malikal mulki tuutil mulki man tashaa hmm. foofu ba aaye bi yegg foofu la fa yàlla wax leer na te wane na ko tamit hmm. ndax ñi fi suñu amoon leen gënal ki ñu fiy samp moo fiy toog. te du fi seen nguur continuer waaye xoolal bañ fiy jógee ni yàlla ne force ñi nga jëloon mbugal leen. tëj leen ci kaso bi toroxal leen. lu ne ñu yekk leen ko teg ko seen der ñoom ñoo lay wuute ci fi nga fi nga toog. kon loolu rek jàngale la. Mhm. kon àdduna lépp lu du waaye di def rek na ci jiital suñu borom te xam ne dëgg mooy njëkk te mooy mujj. ñiy ñaan nag ñi fi yàlla teg muy Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ak Ousmane Sonko ak Mm. yal na yàlla yombale leen liggéey bi mm. li am solo daal mooy li leen sénégalais yi yaakaaree ba tax ñu teg leen fi yàlla bu yaakaar tas li si des nag mbiru suñu borom la yàlla ay mottal yal na leen yàlla jàppale jàppale ñëpp te mu jig mm. waaw am na solo euh, macha allah sëriñ Abdoulaye Wade Ndiaye kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax waxtaan bi neexoon na trop sax xam-xam macha allah génn na xam naa rek lu ñu def lu dul la nga tàggoog mbokk internet yi la doon seetaan. macha allah la hawla wala quwwata illa billahi al azim di sant tey gërëm fa ma waroon a tàmbalee muy sant samay kilifa. sama woy jur wu jigéen maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér allah maa ngi xool sax ci télé bi sama sang bu baax bi sama sëriñ Moulay Abdou Aziz si mhm. ibnu sëñ Habib mhm. ah, maa ngi koy bëgg a tudd léegi ko loolu mbégte gu rëy la mhm. waaw pour dëggal sama cofeel si moom maa ngi koy sant di nuyu di ziyaara fa ma waroon tàmbalee kilifa diina yëpp waaye di njëkkee fa ma bokk muy waa Tiwaawan di jaarale ci sama loxol wasila Moulay Abdou Aziz si ibnu sëñ Habib si nuyoo beeg ziar bi ci njabootu Sidi Hadji malik si gi yëpp mhm. rawatina khalif general bi sëñ Babacar si Mansour di ko ñaanal gudd fan ak wér mhm. yal na ko yàlla dooli jàppale ci yen wi mhm. waaye di ci teg suñu kilifa itam sëñ Muntaxa Mbàkke basir di ko ñaanal gudd fan ak wér waa kër maam Bu Kunta Njaasaan ga ma bokk itam waa kër maam Limaamu Laay waaye waa kër seexal euh, xalifatul islam Cheikh Ibrahima maa ziar di tatagal kullu ñaseen nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk tariixa bi ndax ñun ñëpp taalibe cheikh rek la ñu xam macha allah di ko ñaanal tamit waa Canaba sekk di ko jaarale ci loxo Maakan Seck di ziar tamit waa mbaaleen gi muy waa kër eh, sëñ Assane Kan waaye nag di ko jaarale ci loxol sëñ Ousmane Sam Nuurullah hmm. nga xam ne sama mag la sama xarit la sama sëriñ la hmm. ak sëñ Abdoulahi Mbay mii jarbaatam ca Thiès ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. di kullu mbaa leen. Mm-hmm. sëñ Malick Samb moom tamit maa ngi koy jox wàcc wàccuwaayam ca Thiès di sama sëriñ di sama mag sama xarit. Mm-hmm. waaye nag di ziar kullu kër kilifa diine bawuma kenn ndax ku lim da ngay juum. bu loolu wéyee nag di sant di gërëm samay am di jàmm ku ci mel ni Pape Demba Camara nga xamante ne moom sama lépp la. ak famille Camara ak famille Kayta soxna Tiida Kayta sama grande sœur sama mag sama xarit. di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm ak sama yaay yëpp. ñom nyep pedal ku lim da ngay jum sama xarit ca azir azur khairu siise mom tam ma ngi koy sante diko ko di wax nuyo bi ca caare azur yep ak sama ñom yaay ndey sek ak ñëpp tek naa ko ci loxom <laughs> ak ziar bi. Hmm. comme nima ka tam defé hmm. sama mak ca France jëmb ñaasa ndjay ak jëkkëram pap Amadou Diagne. Hmm. ak États-Unis ki di Cheikh Diagne. ñëpp ma ngi leen di sante di len gërëm di len ñaanal tawfiq ak taysir fami Diagne yep bawuma kenn waye itam sama mak bu gor seigne mohammed Diagne. Mouhamadou Diako Ndiaye sama mag Alassane Ndiaye ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm sama ancien camarade de classe yëpp yi may suivre nga xam ne jamono ji dañ may topp ci TikTok bi mhm. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp sama xarit nag sama rakku bopp Sayar jax moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm ndax ku sonn ci man la te fonk ma te dëggu ci sama ànd ak moom yàlla nañu yàlla fal cat mu suñ seytaan mhm. fii ci Mbambiloo tamit maa ngi sant sama goro yi ma fi am yëpp ak famille di ko teg ci suñu baay suñu maam Jibi Sow ak di sant sama juru jigéen wi di yaa faatu faatu fay di sant sama nijaay saaliw sow nga xam ne dafa sës si man lool rëkk te du ma rëkk waaw di sant senegal yépp ñi may suivre àdduna wërngal këpp di ñaan yàlla yal na yàlla dooli def jàmm ci Sénégal ak di ko wër wasalaam